soxna Jaara jóg way fi ngeen sewey ñoo moo di ba mi des di feeñaat teeram wa de foofu ndaw soxna Jaara bu gi soxna te foro te foo nga yàlla na fi des yàllal yàlla yàlla jox barke soxna jaara aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah alhamdulil xaqil mubin man kawnuhu liyaaya bin ala kitaabil mustabin maha jami niami alhamdulilahi wa salla abada ala lazi bihi lana huda bada seydina muhammadin wal ali wa sahbihi zawil na walil wali mbokki julli di mbokki taalibe yi ñu ngi fii ci Poroxaan ci pàkk bu tedd bi nga xamante ne ni mooy pàkkub wéjur sunu sang bi di Serigne Touba Khadim Rasoul soxna Jaaratu Laahi Mariama Bousso mu doon fi liggéeyal yàlla ba xëy wàcc fii ñu di ko màggal màggal gu sell gu tedd gi waaye xam naa njëkkanteeg waxtu wi maa ngi seq ak euh, plateau bi sama xarit sama rakk euh, sama jarbaat euh, soxna Soda Fall ñu fas yéene waxtaanee soxna Jaaratu Laahi Mariama Bousso en tant que femme modèle seq jotaay bi kan. jàmbaar yi nga xamante ni dañoo takk seen laxasaay ñëw di liggéeyal Serigne Soxna Diar Ndeye bu so ñu min ko lool muy suñu wet sama loxo ndeyjoor muy euh, euh, madame Dieng euh, di directrice su santé sociale Mame Diarra Bousso nu àndandoo ñoom boobu ba léegi daaw ba ren di liggéeyal Soxna Diar Ndeye Mariama Bousso liggéey bu rafet waaye nu seq ak kan jotaay bi sunu ndijaay Serigne Abbas Diouf moom itam di journaliste conseiller ak en communication. incha allah bu ngeen déggee ñu wax di ngeen xam ne mbir maa ngi ci biir euh, kon soxna Soda ma jox la nga nuyu après ñu nuyu suñu sang yi nga xamante ni ñoom lañu seqal jotaay bi euh, fa yéene waxtaan nag euh, ci lu gàtt ki nga xamante ne mooy soxna Diarra Mariama Bousso waaye en tant que modèle. auzu billahi mina sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokku téléspectateur Bichri TV international comme ni ñu leen ko doon waxee ñun ñi nga xam ne waa Bichri TV ñun lañ yebal fii ci Poroxaan ci suba ba tey ñu nekkoon ci yoon wi alhamdulilahi rabil alamin si nañ li ñuy def rek mooy xew-xew bu am fii ci Poroxaan ñu fas yéene leen ko wan comme dañu wax ne c'est une télévision au service de Khadim Rasoul loolu nga xamante ne Bichri TV moom la gàlloo loolu la war a feeñal loolu la waral mu ñëw fii nag ci bésub soxna jaara bi ngir waxtaanee soxna jaara ndax damay wax ne soxna jaara Tullaa est le prototype de la femme soumise soumise envers qui envers son directeur spirituel pour ne pas dire son époux soxna jaara nag loolu nga xamante ni def na ko ci dundam muy remplir ay rôle am bu yemoon ci benn rôle ñu ne waaw mais rôle yëpp yi mu war a joué ci àdduna da koo def moo tax te si 33 ans la ko defee moo tax mu am fi lu kenn amul def fi lu kenn deful waaye itam bàyyi fi lu fi kenn bàyyiwul looloo waral ñu am fi ñaari gan yu tedd muy madame Dieng ak Serigne Bi Diouf ñu fas yéene waxtaanee soxna jaara bi nga xam ne modèle la référence la dans ce contexte de mondialisation nga xam ne ñun dañu mel ne dañu imposer ay références yu bees looloo waral ñu fas yéene waxtaan ak ñoom. ci soxna jaara ñun ñun ndaw ñun ñu war royee ci moom nga xam ne moo door a nekk suñu référence jërë ngeen jëf tabarkalla jërëjëf soxna Soda ci ubbi bi tedd bi nga tedd bi nga ubbee euh, xanaa yi rek euh, njëkkante waxtu yi euh, nuyu sama yaay madame Dieng njëkkee ko ndax jigéen ñi lañuy màggal tey waaye suñu noppee rek xanaa tàmbali rek ak sunu sunu nijaay Amadou Abbas moom itam mu dëkkal ñi ci kan mooy soxna Jaaratullahi bu so euh, kon sunu yaay ñu ngi lay nuyu di la dalal sa télévision Mafatihul Bichri TV la télévision islamique au service de waakar mu Rasuul mun a di jëm bismillaahi rahmaani rahiim euh, sëñ ñu ngi lay nuyu di la ziar di sant yàlla bu baax ndax ni nga ko waxee rek liggéey bi yàgg nañoo ànd di ko def dellusiwaat nañ tey di sant yàlla ndax eh, nekkoon nañ fi daaw ren itam ñu teewe fi eh, ci fii ci poroxaan di fi liggéeyal soxna su baax too xam ne danañ ci waxtaan ci kanam comme dañoo nekk ci nuyoo moo tax rek ñu di ko tàmbalee noonu di leen di gërëm bu baax di leen di gërëm bu baax yéen waa Bichri TV yéen xam ngeen ne moom eh, liggéeyal sëñ Touba moom moom ni ngeen ko waxee rek ci loolu ngeen nekk nag te itam du ci poroxaan rek lañuy ñuy daje maak yow. yow xam nga ne manifestation religieuse yu bari euh, dañu fay daje ngeen di liggéey liggéey bu rafet ca wane ne li ngeen di def yàlla rek moo tax euh, yal na leen yàlla dollee jàppale kon nag incha allah waxtaan wi nga ñuy woo dinañ ci sawar lool kon ñu bàyyi sëñ Abbas moom it mu nuyoo ñu mun a waxtaan wala bu fekkee ne rek ñu tàmbali waxtaan wi noo ko bëggee rek waaw ndax. Euh, ñun eh, dañ ma dama ubbi école ci li ñuy tàmbalee dama ubbi école di fa jàngale mbirum wér gu yaram tuddee ko maam Jaara Buso bu fekkee ne rek dañuy wax te yàlla tax te ñuy wax mbir mi nu mu demee wax dëgg yàlla bi ma koy njëkk a def sax xaw ma lan moo ma loo indi tur wi ci sama mbopp bi dëgg la murit laa ci samay waajur eh, man ci sama jëmmi bopp sant yàlla sama njaboot ak yépp waaye ba may wax tur wi xaw ma woon tax lu ko indi maam jaare bu so ci sama bopp bi dama ko tuddee ba pare nag sama xel soog a delsi te it dama ko tuddee ba pare li tax sama xel soog a delsi dama gis mbir mi nu mu demee ku nekk xam na ne école de santé dafa jafe dafa jafe ubbi procédure beeg ak li ci war yépp ndax di faj ci wér gu yaram. ba di ko war a jàngale keneen ku koy faj loolu ku ko xam-xam ne du ay caaxaan waaye li muy diis diis diis yaakaar naa ne turwee tax mu oyof li muy diis diis diis mën yëguma ci dara bu ñu toogee fii di ko wax fi école bi jaar ñu xam ne soxna Mariama Bousso kenn du moom kenn du moom sama xel nag daadi nag gis ne wax dëgg yàlla ni ecole bi doxe ak ni ma ko bëgge ndax soxna si kat ak ngëm bu am solo la nekk ngëm ak Pastef ndax ba nu koy muur di koy yóbbu dafa jaayante ak boromam waat ne dana fa jur wàllu di ko doxale manit it ba may ubbi école bi dama gis ne am faj dafa doon lu am solo te nguur gi wax dëgg yàlla li muy def it mu ngi def li mu war a def waaye xëy na loolu yëpp doyut il faut ñu am personnel bu doy boo xam ne dina mën di faj ci anam yu sell ñun waruñoo toog rek di xalaat ne lu ñu nguur gi war a defal war nañoo seet ñun lu ñu war a defar nguur gi mu xalaat ne dinaa ubbi école ma gëm ne dafay baax tàmbali ko di ci dox ba nëgëni si kon Pastef nga soxna si àndaloon ba muy waaj di dem waat ne dana fa am ku mel ni Cheikhul Khadim moo tax it ma gëm ne école bi buñ ko ubbee tuddee ko maam jaara bu sa dana toog ba mel na mu war a mel def li mu war a def ni mu mel ak la mu def nag danañ ci dem ci biir waxtaan wi kon nag réccuwuñ luñ ko doon tuddee ndax jikko yu rafet yu ñu xam ci soxna Mariama Bousso te yaakaar naa ne tuuti naa trop pour di ko jàngal àddina bi jikko ya ñu xam ci moom ñu bàyyi ci biir waxtaan bi bu sëñ Abbas nuyoo ba pare danañ ci dem ndax loolu moom lu ñu sawaral def tax. def soxna Soda nga mel ne dégg nga sunu yaay li mu wax yitte yitte feeñ na yéene feeñ na pas-pas feeñ na ana la ju dolli. jërëjëf soxna si. wax ji rafet na sëñ Moustapha mu mel ne dégg nga ne ba muy ubbi école ba pas-pas la ci àndaloon kon pas-pas moo yor lépp soxna jaar pas-pas mën nañ ne moo ko may li mu am ndax ba muy dem dafa ne woon dinaa fa jurwàlliwu te gis nga ni moo fi indi Cheikh Amadou Bamba Khadim yaakaar yi jaam ni bu ñëwee nag ci Serigne bi Diouf ñu bëggoon laaw laaj rek nga présenté wu ñu lay laaj aussi lan nga xam ci soxna jaara waaw eh, soxna Soda ak sëñ Moustapha maa ngi leen di nuyu di nuyu seen technicien yi ngeen àndal ci nuyu bu nuyu jullit waa di kontaan aussi ci seen teewaay fii du du ñu du ñu ndokk buñ ko wax parce que mouridisme mën naa wax ni tool la boo xam ni bépp taalibe daf ci war a bay indi ci contribution waaw li may wax rek ci soxna jaara dama ni moom day defe naa ni ci dëkk bii fii la sampe mouridisme parce que comme ni ko soxla si waxee woon ni ko ni mu giñ ni seen bii dina ci jur wàll yu ca loolu yàlla dëggal na ko donc loolu mu wax liggéey bi fii la ko defi fan yi gàtt na waaye liggéeyam am na solo bu baax a baax a baax parce que jural nañu koo xam ni jant la ah, dégg naa sax yeneen seneen soxna si dañu woon moom dina fi jur weer mu ni moom jant lay jur donc moom am na lu lu ko yàlla mayoon parce que la mu waxoon dafa nekk donc kenn mënul wax mouridisme képp kuy murid war nga ñëw fii Porokhane parce que fii la mouridisme commencé parce que soxna si garab mouridisme moom moo ko samp fii waaw donc képp ku jigéen waxuma sax bu Sénégal képp ku jigéenu jullit ah war nga roy ci soxna jaara roy ko ca eh, yiw ak yiw yiw parce que yiw dafa jafe ci jamono bi ci nekk eh, ca xam-xam ba xam-xam ba mooy alxuraan addis yaru diine di yaru boo xam ne dalay teg ci siratus mustaqim waaw soxna si def loolu nag ah, képp kuy murit war nga benn benn yoon sax ci sa dund nga ñëw fii ci poroxaan kii xool poroxaan ni mu bindoo ca ba mu fi doon dëkk dégg naa ñetti néega fi nekkoon waaw eh, eh, ñun nag bégg nañu vraiment école bi ñu tuddee ko Soxna Jaara école bi aussi tuddee dañ ko Soxna Jaara mais dañu du yemul rek ci jàngale ci royukaay baag ci yiw baag ci sol baag yëpp dañ ko ci boole parce que nag lu waay du woyu da koy nuru kenn mënu koo nuru nag waaye moom kenn la mais nag ñu jéem ci xale yi parce nag euh, Soxna Jaara Euh, defe naa jamono jamono mi ngi door a ñëw parce que yàqu-yàqu yi bari na ci ci xale yi ci jigéen ñi la commencé ci société boo xam ne jigéen ñi yàqu-yàqu commencé nañu société boobu kat jar naa tiit parce que jigéen ak xale ñoom ñooy baasu société waaw ci gàttal daal euh, jigéeni Sénégal yi yeewu leen am ngeen nee naa leen Sénégal royukaay duñ ko jigaan yi fenn. fenn laa wax muy ci diine muy ci leneen duñ ko kii ñëpp fii booy seetlu xam nga Sénégal dafa am doye parce que sunu kilifa diine yi jàngiwuñu fenn Sénégal gii lañ leen jàngale demuñu jëgaan yi fenn lañ jàngale fi lañ jànge di jàngale ci jàngale jàngale boobu fu ñu dem si le plan international bu ñu wax ñu ñu déglu leen respecté leen donc royukaay yooyu vraiment war nañu di ko jàngale ci sunuy école ñoom li ñu bind buñ ci yemoon rek. réew mi développé na bu yàgg yàgg yàgg parce que dina dinañ la wax yow jaay kan teg la ci yoonu siraatul mustaqim bon ci loo xam ne di nga am fii di nga am fële ci gàtt gàttal rek loolaa amoon lu ma ci sànni euh, di des si nag ci soxna si parce que moom it euh, euh, mën naa ni jàmbaar la parce que pas-pas ba ba ma ko amee metti woon na lool lool ñu naan du dem xam ñu naan du dem waaye day ah ku ñëw ci école boobu visité ko di nga xam ni kat ah mu ngi góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ba pare aussi fas yéene bay waar fii ci Porokhane waaw bay waar ci Porokhane parce que école Mame Diarra Bousso bii ñu dem euh, le directeur Abou Mariana Diakhaté ñu toog moom wax wax ak moom képp kuy murit war nga ñëw indi ci sa loxo waaw parce que école bi war nañ ko dégg sur la plan international parce que programme yar bi ñu yoree ci diine. ah defe bu fi xale yi jaaree société bi mun na ci defar. jërëjëf sëriñ Abdou Abbas Diouf wax na fi lu am solo mu mel ne lim ñu jàngal mooy ñun ndaw ñu ñu roy ci maam bu Bousso waaye wax na it lu jëm ci suñu système éducatif ndax ñun bu ñu jàngal maam bu Bousso ci suñu école primaire lay doon du secondaire. du collège du du du du lycée ba du université ba te buñ la koy jàngal primaire dañ lay jox demi page boo xam ne dañ la ciy jàngal jaar Diarra Bousso te dañ koy booleeg ñeneen ñoo xam ne yow ci sa bopp jàpp nga ne jaar Diarra Bousso du seen nawle donc suñu ay njiit am nañ ci part de responsabilité ci ñu jàngal Soxna jaar Diarra Bousso buñ ci tolloo ñu xam kii mooy Soxna Diarra Bousso loolu moom dañ koy bàyyeeg suñu njiit yi nga xamante ne nii peut-être ñoom ñoo yor pouvoir bi wala ñoom ñoo ñoo nekk ci instance de décision yi léegi sëñ Moustapha li may def rek mooy bàyyi la kàddu gi ak madame Simaxa ñu àggale incha allah. la tabarkàlla jërëjëf sa sunu njaay Amadou Abbas Diouf ci développement bi nga xamante ni développé nga ko ci waxtaan bi nga xamante ñu ngi toog di waxtaan. mu mel ne soxna Soda ku déglu sunu nijaay mu wax jëm ci soxna jaar Diarra Leye Mariama Bousso ni mu ko tënkee gàtt na lool waaye am na solo lool ndax ci biir waxam yaa ngi koy dégg benn baat muy wax mouridisme Euh, on peut le définir comme étant une voie éducative qui vise à promouvoir un homme modèle la modalité de Soxna Jaara Mariama Bousso dafay daal di dugal foofu feeñ euh, par sa conduite euh, son application son sérieux mais sans négliger l'ordre et l'organisation te yooyu benn bu si nekk bu ñu ko doon ràcc di ko waxtaanee di nga ci fi gis wax na ko léegi sunu tante sunu sunu yaay booy madame Dieng wax na ko ban jigéen mooy ñëw tey di la jàppal sàkket ban jigéen tey mooy ñëw di xar euh, gaalam ngir di ko toggalee borom kër euh, laax mu ne ban jigéen tey mooy dagg yittem yëpp di fanaanee julli xiyaamu layli Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bu déggee wax na ne euh, xiyaamu layli kat mu ngi ko mi ngi ko reyee ci soxna Jaara Lay bu Buso reyu ko feneen ndax seetlu na bu ko mësaa sàng tëral ko ci lal bi dina gis muy fanaanee julli ban jigéen mooy daan mooy mooy bàyyi soxlaam topp borom këram ci àll bi ngir mu lekk ba suur mbaa ngir mu naan màddi ban jigéen mooy mooy mooy mooy def yitte ji nga xamante ne ni application ci biir kër euh, borom këram ba borom kër ba gërëmal ko ngërëm loo xamante ni dafa fekk ay nawleem ban jigéen mooy jëli ci yàpp yàpp ci moromu jigéenam ni moom ñëw ne ko dama laa bëgg a dénk sama borom kër bi tey bëgg ngir lu baax sosoo ci kon mu mel ne kon euh, mouridisme boobu nga xamante ne ni tudd na ko ci biir làmmiñam dafa daal di ëmb nag euh, suñu waxtaan tënk ko ci ay facettes yu bëree bëree bëri mu mel ne loolu sunu yaay kon xam naa dina ci dugg développé ci ndax kenn ku xam kenn ko ne xam na ne maa koy faral di wax maa ngi koy wax léegi dama ko wax ne ko euh, jàkkatu marchand ambulant boo gis boo ubbee xolam da nga fa fekk magasin ndax mooy yéeneem mooy yitteem mu mel ne kon bëgg-bëgg bi nga xamante ne ni moom la euh, soxna Diarra Tyella bu Bousso doon ambitionné doon ko bëgg mu nekk ci xolom mu koy dawal ci yéeneem dawal ko ci jëfam ba tey jii nag ñu wéyal ko way wu rëy nga xam ne wax nañ ne moom bu defoon suqab cuune du wan kii ñu wóolu kan ki nga xamante ne moom la borom euh, xalama gi euh, yëkkati xalimam di bind ci moom di wax ne jazaka rabbuka ya hadi hawa i jaman yaxdo ilayka bi xayri zati kayaati jazaka rabbuka maa yubidika fadala bihi bi jaa il sann yowman xusumaati jazaka rabbuka xayran hauna wa hadan an ummatil mustafa xayri bariyaati ki nga xamante ne moo dimbali xeetu ummati seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bépp mu sëriñ tubaa xaadimu rasul bàyyi kowul kenn bàyyi kowul fenn bàyyikool ci kenn ku dul soxna jaaratullahi Mariama Bousso dégg moo ko nangul waaye dafa mel ne dina dina gën a sori loolu bu baax nga ubbi sa école sa yéene sa xol am lu lay yëgal leneen lu bokkut ak loo xamante ni yaa ko yéene sa bopp rek nga ko léegi ci ni la déggee nga tuddee ko soxna jaaratullahi Mariama Bousso donc koo tuddee ngir sa sëriñ la mbaa sa yaay sëriñ la danga koo tuddee ngir da nga ci am yaakaar bëgg mu jebbi ndax soxna jaara lu mu laal mu dem Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul wax la ne ci yoonu géej gi diir muy dem ba bi bi ñibbisi kenn dong la gis ku koy wétali ci yoon wi naan sëq ci mbaggam ne ko génne ne ko doxal sëf liggéey mi soxna jaara Tiley Mariama Bousso ndax looloo tax nga ambisé na ko ñaareel bi mooy ndax yaa ngi pare liggéey bu tedd bi nga xamante ni sunu sang bu baax ba sëñ Moustapha Bassirou soxoon na ko ubbi fi ab institut boo xamante ni ay maam jaara fi nekk àndoon kàk sunu yaay ju baax ja euh, Ayda Jaay ba delloo ñu ñaan suñu borom suuf sedd lool ci dox ci ci kawam barke soxna jaarate la Mariama Bousso bëggoon ko lool defoon defoon ko ci xolam mu mel ni yaa ngi topp ci trace yooyu nag est-ce que pare nga say xalaat est-ce que pare nga ci say bëgg-bëgg est-ce que pare nga ci sa bi nga xamante ne nii yaa ngi ko jug nag fas yéene ko visé nag mu jëm ci soxna jaarate la Mariama Bousso produit yi bàyyi ko fii di ay maam jaara xëy bis ñu ne santé maam jaara tey jii ubbi nañ benn hôpital boo xamante ay maam jaara doo nga fa nekk dafa jàngale ngir kat war naa am contrepartie retour boo xamante ne ni war na ñibbisiwaat ndax lii nekkul luy fay la mooy sa kàddu école bi ni ma ko tuddee soxna Mariama noon laa ci xeexee di ci dox ba tur yu wuyu borom tàmbalee ci école bu mag bi ci Dakar yàlla dimbale ma am na it ci région yi Louga ak jurbel éducation bu mot sëkk laa fay njëkk a tàmbali balaa maa dem ci formation bi toujours ci xale yi dama leen koy wax yar ak teggin. du nu neex ngay solo solo pour dugg ca école ba yar ak teggin di jàng te bugguma dégg fa ñu dégg fa dara loo xam ne. Euh, lo tur wa wuyuwul borom bugg ko ci résultat kon cegem école yi nga xam ne ñoo nekk ndakaaru ak ci région yi astamaan nag fii ci poroxaan institut bi nga xam ne ay maam jaara rek ñoo fi nekk dëgg la jàngal nit alxuraan baax na yar teggin macha allah loolu yëpp mot na waaye it sama yéene ëpp na foofu ndax itam jàngal ko métier moo xam ne ëllëg ak ci biir dina ci tedd ndax maam jaara soxna maam jaara kat dëgg la yar baag teggi nag alxuraan fonk borom këram mën àll mën mën biir këram waaye itam femme de développement la woon loolu nañ ko xam kon ñi nga xam ne dañuy jàngee ci école bi ñu ko tuddee ah bu ñu defee ci ñoom yar ak teggin def ci ñoom xam-xam alxuraan di leen yedd ci dunde lu rafet te war nañuy def ci ñoom itam métier mu sell moo xam ne ah dinañ ci mën a jaamu seen borom mottali seen jaamu seen borom ca loolu ah dama ko am yéene lu ma faslante woon ak sëñ Moustapha Bassirou ah bi mu wàcceb liggéey itam waxtaan woowu bàyyee woon na ko sëñ mu taxaa ba bërki Dembo njaay ba ñu toogee di ci waxtaan daf ma ci ñaanal bëgg ci lool bés boobu sëñ bi waroon nga ko fekke ba loolu daal dama bëgg ñun yéen ñëpp ngeen ñaanal ma ah, nanga ma amee woon pastef ca ubbi école bi nekk dakaar ah fi mu nekk nii ci loolu laa taxawal defe naa ne eh, bu ko raw taxawaay bu ko raw sax taxawaay bu ko raw ba am na ay jéego yuñ ci jot a def incha allah bu ñu ca tolloo dina doon waxtaan wu gën a yaatu di ñaan yàlla rek ah eh, yàlla jox ñu ca ndam yéene guñ ci am rek bu kawe suñu njort ñun ñëpp ñu fekke ko. loolu rek laay ñaan ci ñun ñëpp ñu jàppale ñu ci ah di ci wax euh, sëñ Abbas moom itam tabaarkaal la lépp lu ma ciy dox maa moom a koy ànd ak i xelam ak i pexeem ah, yow itam wax dëgg yàlla euh, yow ak sa équipe bi nga nekkal yéen a ngi ciy jàpp damay ñaan daal ñun ñëpp yan nañ ci yàlla dolli ndam incha allah parce que itam nit ki boo ko jàngalee il faut nga jàngal ko métier. toog ba ñoom ci seen foofa parce que man dem naa fa ba visité ko gis naa ni ñu nekkee xam naa ne ñoom daal yal nañ toog ba mun métier bi toog sax ba ubbi fa seen dispensaire bopp boo xam ne waxuma sax euh, ñu di ca fajoo yëpp waaye ñoom ñu jàng ba mën a faj. ba ubbi un de santé boo xam ne xëy na dinañ ci am sax def ay recettes yu yu yu yu woyof yoo xam ne dina am fu mu leen fu mu leen fu mu leen euh, fu mu leen féete parce que seen formation professionnelle am na yeneen section euh, section couture section euh, restauration waaw ndax keroog bi ñu fa demee sax waa section restauration ñu ngi defar ci màggali poroxaan yi ñu ngi defar ay gâteau yoo xam ne ñun servir nañu ci neex na waaw section couture baa nga fa et cetera ah waaye yaakaar naa ne itam euh, damay ñaan rek euh, résultat yi ñëpp ñeneen am rek ñun ñu am lu ko raw ndax njàngum njàngale faj itam lu am solo la loolu defe naa jarul ma ma di ko di ci sori lépp lu may ñaan daal euh, ñu dimbale ma ba loolu yàlla dimbale ñu ba nga xam ne loolu daal ñu dolli ci am ndam ndam lu kawe ñu njort yéene lu ñu lecture la rek bu ñu defoon fekkewuñu fekkewuñu waxtaan wa euh, sa digg ak euh, sëñ Mountakha fekkewuñu tam waxtaan wa sa digg ak sëñ Moussa Bassirou waaye dañuy faral di wax ne lu juddoo ci mu tàgg daal bu naawul jaaxali bokkam ndax xam nañu yéen ji nga am ci sa digg ak soxna Diarra Leye Mariama Bousso ku la gis ngay dem da ngay day soxna Diarra buy dem ku la gis ngay dox day seen soxna Diarra buy dox si sa liggéey ñu gis ambition ak doxin bi nga ciy doxee saa su ne ban sentiment ngay sentir moment bii nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee ak keroog bi nga xamante ne toogoon nga ak sëñ Moussa Bassirou yéen ji doog di doog a man de sentiment bi ma ci am sax ndax mën naa koo nettali dina jafe nettali xam naa ne daal lu may dund ci sama yaram la loo xam ne euh, euh, nettali ko dina jafe dina jafe torop waaye xam naa ne dafa mel na daal doon na buum gu ma yeew fekk li ma ci bëgg defuma ko góob ma ne buum googu dina mën a fecceeku doon na soxla bu fees sama bopp boo xam ne fekk li ma ci yéene defuma ko du woye ci sama bopp loolu nag euh, ñaan yàlla mottali yéene gi rek moom laa ci am. Euh, jërëjëf euh, sunu yaay booy kon mel ne dina am question bu ma laaj rek soxna Soda dégg nga ni ko sunu yaay booy développé yéeneem ci kër Serigne Touba Khadimou Rassoul kër Soxna jaar Diarra bu Bousso dëgg nga itam pas-pas bi nga xamante ne nii soxna Soda dina am solo lool bis nga dugg ci clinique koo laaj mu ne la maam jaar laa tudd ku fa juddoo yitam ñu ne mam jaar la tudd mu war a gën a mën a yaatuwaat ci gox goxi senegal gépp mu mel ne kon daara ji samp fii ci poroxaan war naa mën a dem samp feneen ca ca Naawel war naa mën a dem samp ca Mbacké war naa mën a dem samp ci biir Touba war naa mën a dem samp ci Thièyène Jolof war naa mën a samp euh, Daaru Moxti Daaru Salaam ak fépp foo xamante ne ni Serigne Touba Xaadimu Rasuul samp na fa mbërëm daara ju daara soxna jaar la Mariama Bousso war na faa mën a samp ndax suñ Tuubaa dafa wax ne fusti bi zarfi xasanaat la wax mu mel ne ay xasanaat nag moom lañ taggoon Yuusuf alayhi salaatu wasalaam mu mel ne ay xasanaat itam moom la sama borom taggee sunu sang bi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon est euh, mission mii noble na ba fekk si noblesse bi nga xamante ni soxna jaar la doon na ko dox fii ci pàkk bu tëdd bi nga xamante ni nag te moom lañ ko fekk si. jërëjëf sëñ Moustapha wax nga lu am solo. mu mel ne nee nga daara ji nga xamante ni moom samp na ko dakaar muy jàngale te ay soxna jaara nekk fa bëggoon nga mu am ci région bu nekk man sax du ma wax ne région nangam région nangam waaye mu dem ba wër àdduna mu nekk lu international nga xam ne da nga fay dem xam ne ñii ay soxna yu ñu jógee ci dëkk bu ñuy wax Sénégal la waaye muy ñu am diine mu ñu yar ndax gis nga léegi sëñ Moustapha dafa mel ne li ñuy wax ne dañu nekk ci village planétaire ñeneen ñi nga xam ne ay puissance lañ leen woowee mu mel ne ay Amérique dama lay jox exemple ñoom dañuy bëgg a imposer seen ay culture bëgg ñu imposer sax seen ay anti valeur ndax gis nga président Barack Obama bi mu ñëwee Sénégal li mu laaj suñu président Macky Sall mooy fan ngeen toll ci légaliser li ñuy wax homosexualité jàpp naa ne duñ ko mës a légaliser mais pour walla rek ñun ni ñu mën a royee ci soxna Jaara muy góor mu jigéen ni ñu ko mën a génnee ci àdduna wërngër këpp bañ gis ko te defuñu ko jàpp naa ne duñ ko légaliser fekkoon juum nañ ba ne ko waaw donte suñu président lam ko tontu leerul ci suñu bopp ndax dana ko pareeguñu waaye donc yàlla bu ñu pare mais bu ñu juumoon ba ne ko waaw bu ëllëgee dinañ ñu kat États-Unis kat am na fa dëkk bu ñuy wax Colorado am na drogue bu ñuy wax cannabis légalisé nañ ko fa waaye dugal na kat lu toll ci 32 milliards de dollars ci seen état. mu nekk lu leen surprendre alal ju toll noonu bu ëllëgee dinañu ah Sénégal yéen kat comme ay pauvre ngeen tey ngeen a essayé drogue boobu muy ay anti valeur yu ñuy jox ñu ñu am suñuy valeur yu mel ne soxna jaara pourquoi pas ñu koy génne ci àdduna wër ngër këpp wan leen ne leen ñun kat am nañ soxna soo xamante ne nii ku ci roy di nga taxe àdduna di nga taxe àllaaxira muy tubaab muy nit ku ñuul muy nit ku jaune mu ñëpp moom mission bi mu nekk dafa noble ndax li mu bëgg mooy donte waxuma ñu tudd soxna jaara sax mais muy am sooda muy am xadi muy am mareem ñu def ci yow jikkoy soxna jaara comme si yow soxna jaara nga tudd jàpp naa ne moom loolu la bëgg di la liggéeyloo di la ñafeloo nga gëm sa bopp être tout temps productive ndax ñun ay jigéen lañ te fi mu ne nii comme am na ñoo xamante ni dañuy wax ay parité te ñun donte gëmuñu parité sax waaye gëm nañ ne jigéen moom toll nañ ci jamono joo xam ne warta toog yaacaaral war naa jàppale borom këram comme ni ko soxna jaar doon defee ndax wax nga ko léegi koo xamante ne nii dangaa xal sa gaal di ko toggale sa borom kër laax wala sax nga dem ba mettre en gage sa ay takkaay maanaam tay la ko ngir soow moo xam ne da nga jàppoon ne bés bu nekk warteef la ci yow nga bégale ko sa borom kër loolu yaakaar naa ne lu yéeme la. loolu ñun dañ cee war a roy bu baax a baax xam ne ñun am nañ ay référence xam nga ñun ñu fi toog ñëpp koo ci waxoon kuy sa référence di nga wax kuñ mën a dégg waaye boo demee ba Dakar ci mbedd yi man ngaa taseeg sama morom boo xam ne boo nekk kuy sa référence dina la wax nit koo xamante ne nii peut-être yow dina la jaaxal. même bu la ko waxut tam ma nga solu à la Rihanna wala à la ñu dem ba suñuy góor ci seen bopp du yor ay saagu jigéen pour imiter ku ñu wax kenn west koo xamante ne ni moom neena moom jaay na amam jaabul moom maanaam loolu la wax kon kooku amatuñ leen luñ koy yedd ci wàllu diine kon toppandoo gi ñu nekkee ñun ci suñu bopp tey yaakaar naa ni culture yu bokkul ak fañu royee jul euh, euh, diine yu bokkul jëfin yu bokkul waaye am-am yu bokkul kon loolu dañ cee war a bàyyi xel ba xam ne ñun am nañ ay référence muy lu ñu loo xamante ne nii moo ñu war ñun jigéen moo ñu war góor parce que dañu jàpp ne soxna jaara jigéen ñi doo nga war a rey ci moom waaye déedéet góor ñi dañoo war a rey ci soxna jaara góor ñi mu jigéen ñi ndax doxalin bu mu doon doxalee li ma la ko xee léegi soxna jaar dafa matale ndax bu mataloon néegu sëyam kese dañ naan ah soxna jaar néegu sëyam dong la matal bu mataloon julli yeeg jàpp yi dong dañ naan ci julli geeg jàpp yi dong la matal mais soxna jaara dañoo jàpp ne dafa matal lépp moo tax moo xam mu nekk ko exceptionnel comme ni ma koy waxee dimension exceptionnelle Soxna Diarra parce que man damay wax ne Soxna Diarra est une femme dont l'immensité de l'œuvre ne se justifie pas par une longévité de vie car n'ayant vécu que 33 ans koo xam ne fanweeri at ñett doog nga dund sa immensité œuvre mënuñu ne sa dund gu yàgg moo la ko may kon nekk mën nañ ne miracle waaye Pastef la woon Pastef ci moom moo ko may lu mu am parce que ñun ñoo ngi koy yéem mais li mu def moom yéemu ko dafa jàpp sàkket bu fa daan kii bi ñu la koy wax yow dafa extraordinaire ci sa bopp alors que moom ba mu koy def dafa jàpp ne wareefam la boroom këram sant ko mu téye ko ba mu yónnee ko teggil mu door a teggi loolu noonu rek lañ ci jàngat. tabarkalla loolu lañ ciy jàngee soxna Soda mu mel ne kon euh, fi nga dugg ak am na solo lool dugal nga ñu ci la ñuy wax euh, crise des valeurs dugal nga ñu ci exemple boo xamante ne ni euh, taxaw na tey fii si suñu jamono vingt et unième siècle bi waaye dugal nga li nga xamante ne ni xew na muy réalité boo xamante ne ni tey ñu ngi koy dund Euh, donte naqari nañu amuñ ci pexe euh, mu mel ne xam naa dañuy dugg ak suñu baay euh, Amadou Abass mu suñu baay mu indi ñu tuuti ci fii ñu toll tey ci vingt et unième siècle bi nga xamante ni toll nañ ci boo doon taxaw ci ginnaaw nga xool Khadija ni mu màggee woon Yonent bi alayhi salaatu salaam ba noppi jàppale ko ah Sayyidatuna Aïcha mu nekk xale bu tuuti nekk ci wetam. par rapport différence d'âge bi nga xamante ne doxoon na seen diggante est-ce que du mooy problème bi nga xamante ne moo am tey ba tax Euh, lii xew di xew jigéen mën a toog ba fanweeri at ñeent fukki at du am boroom kër ndax dañ koy bëgg si muy dàqe dafay am lu muy wër di ko xaar gisigu ko ba yàgg mu perte lii faral di wax nag ne xanaa tànn ko daal ba gis daal ay carax lay mujjee. Euh, sëñ Moustapha euh, sa question bi am na solo am na solo lool lu tax mu am solo gis nga soxna maam jaaru butu jaarutulaay ni nga xam ne noonu la dundee àddina àddinaam doomam ji tedd ji Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dafa ñëw tënk ko ci ñaari baat nee na murid muridisme jaamu jaamu yàlla liggéey donc dafa ñëw tënk ko xam nga ñun jullit yi lan mooy suñu problème euh, bu fekkoon ni jullit yi ja parce nag bala ngay jaamu na nga xam sunu borom na nga ci jéem a xam. na nga jàng alxuraan jàng hadis xam sa diine yàlla bu nee la ci sa xam sa diine bul fen yow nga ni bu ma demee ci économie ba fen bu ma demee ci politique ba fen mais yow fen fen la fen fen la waaw foofu la problème bi nekk waaw jàng ko nag ci dégg ko jëfe ko moo jafe waaw suñu problème yëpp loolu la parce que lislaam ku ko jëf euh, Mariam Bourole dafa appliquer rek règle islamique ci yar ci dund moom la ak moo bu ñëwee dañ koy roy di njëkk ba pare doon jullit nañu rafetal suñu diine nañu xam sunu diine ah li yàlla wax ci nii noonu la ñuy doxali jiin diine ci pratique bi nga def ko waaw si digganteeg parce que diine lu yomb la sunu borom dafa ni man maa leen sàkk maa sàkk asamaan ak suuf maa leen moom kenn moomu leen bu ngeen di gëm gëm leen ma man may joxe man maay may waaw yow nag boo ko fa bàyyee fab sa bopp dem jox ko keneen lu la dal ëllëg yow la lu la dal ëllëg bul wax kenn yow la waaw euh, euh, loolu mooy lay won rek nii euh, lislaam buñ ko doon appliquer waxumu nit ñi duñu sonn de. waaye islam lu mu wax ah fonkal sa fonkal sa morom fonkal nit la wax d'abord fonkal nit li nga yéene sa bopp nanga nga ko yéene sa moroom boo ko mënee dimbali nga dimbali ko waaw loolu mooy tax ma ñëw ci soxna si li nga xam ni waar la waar la bu mu bëgg a bayaat bayaat ci euh, euh, toolu mouridisme surtout ci royukaayu soxna maam Jaara Buso parce que nag dinaa fàttali nag. ëpp na fukki at ak lu topp at mu jot mu ñëw fii ñëw di faj gratuitement di joxe médicament kooku déjà kon moom mi nga bay ci waaram donc bu ñu waxee bu ñu waxee ci li mu wax dëgg la moo ko teree nelaw bu waxee ni bëgg na fi defaat leneen ci ñi nga xam ñooy jàng fii ci école bi parce que wax na dëgg parce que boo jàngee ba jeexal alxuraan léegi nag mais li ci des mooy lan. mooy li suñ sëriñ wax jaamu yàlla liggéey liggéey liggéey il faut nga am profession il faut nga am profession il faut nga profession loolu nag profession aussi ni nga jàng alxuraan nga war a dem jëgaani ko pour jàng ko pour mën ko appliquer waaw ci loolu aussi eh, àddina ñetti yëf ko yore santé éducation ak liggéey foofu la tëdd économie boo indi lool loo fi indi système idéologique bu ñu fi indi lool bala ngay bala ngay liggéey na am wérgu yaram bala ngay liggéey na nga am euh, euh, éducation na nga xam na nga xam donc yooyu ñetti yooyu la dajale donc fii ci poroxaan nañu wax nag nii poroxaan changé na man poroxaan yàgg naa fi ñëw waaye ku xool poroxaan gu njëkk gi ak poroxaan gi nga xam ni kat sëñ Moustapha Bassirou ak ñi ñi ko fi wóotu vraiment liggéey nañu parce que am na temps poroxaan boo ñëwee doo gis làmp de waaw am na proxaan boo fi ñëwee pour gis fi sax taax doo ko fi gis waaye ku ñëw gis dëkk bi niñ ko rëddee ak ak dëkk bi ni muy màggee nga xam ni kat ñi nga xam ni ñoo yore dëkk bi kat ama nañ leen jukkal ama nañ leen jukkal waaye nag ñoom mënuñu lépp waaw kon bokk képp ku jullit war nga contribuer fii ci dëkk maam soxna maam jaara jaaratu lay bu tedd bii surtout ci école bii nga xam mu ne école yar la waaw parce que yar moom mooy yore àddina parce que la famille moom c'est mooy nation bu tuuti la famille bu famille bu famille bi yaar bi baaxee famille yëpp seen yar baax ah sa waay le pays la nation yar bi dafay baax mais bu nasaxaaye mu nasaxaaye ca yarkat pivot bi mooy jigéen donc li santé lu tax mu solo dañuy wax droit de l'enfant mais bala ngay wax droit de l'enfant da ngay wax droit de la mère kii jur santé santé de l'enfant mais santé de la mère euh, mère euh, yaay bu amul amul santé bu baax ah góob góob mu jur doom jam bonne santé waaw te yooyu yëpp fu muy mujjee ji bala ngay liggéey nga am santé boo amul santé doo ko tal waaw donc comme ko xam nañu mais nag dinaa wax leen nag. Sénégal jigéen ñi nag yaaf suñu ah dañu waxante dëgg yàqu-yàqu bari na mais jigéen yi nag ñoom tam ñi ngi jàpp waaw dama ni bu jigéen ñi bàyyi woon seen loxo fi mu nekk dëkk bi dina dina doy waar de waaw doy waar d'accord addina nag mooy dox Sénégal bu njëkk deux million cinq cent la ñu woon boo déggee ku dee bala nga koy dégg ay ati at la mais léegi boo déglee rajo bi parce que ñu ngi ci treize quatorze millions a affaire yi dafay gën di bari dafay gën di yokk. bon problème yi day gën di yokk ba pare léegi comme ni ko soxna si waxee village planétaire laay ba ñu dégg ma ni yàlla moom moom àddina moo ko sanc waaw ku nekk dafa am fu mu la féete la nga dëkk fa nga am yar am kii yow lu nekk it yow it yow li nga doon li nga doon mooy sa culture waaw léegi nag bu ñu bëggee nasaxal sa culture boobu ma bu ñu sikki kenn. ku nekk yaa war a défendre sa culture ku nekk yaa war a défendre sa religion ci ñun suñu religion suñu diine bi ni ñu koy defee fii amuñu fu ñu koy jigaani fii référence la référence la ci àddina boo waree àddina ba ñëw di nga ni Sénégal alhamdulilahi rabil alamina coow li bari na nit ñaa ngi gàññ waaye nag li lay woon ni wax ji bari na waaye jàmm ngi fi jàmm kat ak sécurité moo tiital àddina ñi nga xam nu ñoo fi gën gënoon ëpp doole yaakaar ni ñoom kenn mënul leen dara léegi xam nañ ni kat saa ñoom sax ñoo ñu gën a tiit léegi parce que nga daan def terroriser léegi yow ñu terroriser terroriser ci sax euh, euh, day door a tàmbali xam nga loolu looy na waar te loolu accès gul suñu réew waaw lu mat nañ ci bàyyi xel nag parce que euh, den dëkkandoo dafa doy waar loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax gën a vigilant xam naa ni Sénégal. yar bi yar bi nga xam ne moom la fi mag ji indi kat moo indi loolu de parce que tolérance bi fi am tolérance religieuse am na fi tolérance tolérance ethnique am na fi tolérance politique am na fi mu neex mu naqari loolu lépp am na fi waaye nag bu ñu yaafusee dina daanu parce que nag affaire bi relais la de ah génération bi bu dund bu toogee dundee noonu jox ñu jox ñu ñun génération bi ñu yooyee ko loolu ñu nga xam moom moo fi mës a samp muy jàmm. muy sutura ah, loolu parce que génération bi jël témoin bi war na fexe ba loolu euh, loolu mu doon mu bàyyi ko fi pour mën a jox témoin euh, pour mën jox témoin bi ñeneen waaw loolu nag rôle média yi lu am solo la média yi war nañ seet li ñuy génnee dafa am lu ñu mën a génne ak lu ñu warul génne man mi wax nii je suis dans euh, je suis mais am na yoo xam ni nañ ci def attention àddina ba mu solo ba ba mu soxoo ba léegi lu bon lu bon a ngi fi lu baax a ngi fi ca du fi dañ nag waaw mais euh, sutura dafa baax parce que bu njëkk da ngay dugg sa néeg wala sa quartier ñu ñu tam la fa ndëmb mais léegi bu ñu tamee ndëmb ci média yi si àddina bi yëpp la dañ naan kii dëmb la waxin la ko donc li nga xam ni boo ko génnee sa deru dëkk yàqu vraiment ak loo bëgg a joxe information jóge information vraiment bala ngay joxe information aussi na nga xam ni patriote nga. xam ni sénégalais nga nga xam ni Sénégal aussi lu koy defar duñ ci war a contribuer te média dafa am doole média am na doole boo xam ni vraiment nañu seetaat bu baax a baax a baax a baax parce que mënuñu parce que gis nga ne bu la ci kenn nax muy muy euh, média muy économie muy leneen la base c'est la culture waaw ñun mënuñu développer. ci culture keneen suñu culture lañu mën a def eh, kii sës pour mën a développer pays développé pays nga xam ne dañuy jëg yëpp les les japonais seen culture dañ ko téye fukki loxo les chinois fukki loxo waaw mais ñun suñu suñu suñu suñu culture bi nga xam ni ah man ni du ma ni man dama ni sama culture man ñeewuma kenn waaw lu baax nag lu baax di nga gis leneen lu baax feneen nga jëm ko kii waaye déjà li ñu yore. mën na royukaay donc nañ fexe ba loolu bu mën a saxaay problème yëpp foofu la moom yëpp foofu donc soxna si li mu bëgg a def euh, parce que école bi ñun dem nañ fa waaye ku nekk war na ci dugal loxoom parce que école buy yar yar boo xam surtout surtout jigéen mais jigéen bu bu yaroon rek àddina bi yaru waaw donc école bii nga xam ne ñu ngi yar yar la ci diine vraiment ci ci kat comme ni ko suñu sëñ bi mag bi waxee. jaamu e, diine biñ lay yar pour jaamu yàlla jaamu yàlla liggéey ci la bokk donc jaamu yàlla liggéey donc boo boo fi jàngee ba génn war nga suturlu déjà ñoom def nañ progrès bu rëy parce que ñu ngi defal formation xale yi xam xale bu génn à 16 ans parce que 16 ans ngay génn foofu nga amaguloo 18 ans waaw donc nañ ci bàyyi xel ni xale boobu aussi dafa war a dund dafa am dafa war a nekk ci néegu sëy ah. donc war na am lu mu mën a téye pour dimbali euh, jëkkëram dimbali ay doomam dimbali ay mbokkam comme ni ko soxna si waxee jigéen baax baax na góor baax na waaye euh, ah man de dañuy je suis féministe parce que quand jigéen ñi jàmbaar la bon am na côté bu ñu leen di wax mais loolu loolu du mun ñàkk waaye jàmbaar la ñu de jàmbaar la ñu lool lool ak jamono bi naqari bi jàmbaar lañu li may bañ nag mooy ñu fam ñëpp def leen dans le même sac déedéet ñi daan baax a ngi baax ba tey fa ndox daan taa a nga fay taa ba tey waaw <laughs> c'est que nag wawaay bi wawaay bi gën a tàng rek mais fa mu daan taa ma nga fay taal bu nekk euh, sujet bi dafa laati daal euh, Moustapha donc yéen it dinaa leen féliciter parce que euh, lii ngeen di def nii di wax ci suñu culture ci culture c'est un ensemble waaw diine ngi ci ah, cosaan a ngi ci ah, développement ngi ci ah lépp sax ngi ci daal donc lii ngeen di def nii ba pare def ko ak defin bu yiw def ko tëral ko ci li nga xam ni mooy yaru diine man déglu naa wax bi wax bu sel la soxna si wax yow it déglu naa la bu baax wax bu sell nga wax mais loolu mooy télévision waaw télévision dafa war di yar. waaw yar ci waxin ba yar ca colin ba waaw vraiment war nañu seetaat aussi modèle yi nga xam ni moom la ñuy joxe ci suñu télévision yi waaw jigéen mel noo xam ni xolli sa xel sa yaram ah takk takk takk karaw goo xam du sa karaw pentuur sa kanam ah nga def ni yow eh, xadd nga kaa bëgg a déedéet xool soxna si ni mu solo xool soxna si ni mu solo waaw loolu mooy solin bu yëw ci ñun loolu lañ xam donc ku ñu nar a dugal ci loolu vraiment ku nekk war na famille bu nekk ku nekk war nga seetaat sa kër daal ci yëpp nag ci xale yi lañ ki commencé waaw euh, dafa mel ni parents yi dañu xaw a wàcc seen seen loxo waaye ba tey ce n'est jamais trop tard waaw ce n'est jamais trop tard donc daal war nañu góorgóorluwaat bu baax a baax a baax waaw joxewuma nag ay leçons samay xalaat rek laay wax. <laughs> damay mel damay joxe ne sax maa fi gën a sikk waaw man mii maa fi gën a sikk mais sama xaraat rek laay wax pour contribuer rek waaw parce que jamono buy dox aussi parce que wax dafa am wax dafa dafa am solo parce que yàlla ci wax la ñu sàkkee kun fa yakkoon la wax donc yax wax mën na rey mën na dundal waaw moo tax média am doole waaw moo tax communication am doole waaw mais. Euh, man de rafetlu naa ni ngeen di defee seen communication. mel ne dégg nga kon euh, soxna Soda euh, nga xamante moom la ko suñu sunu bàyyi sunu nijaay euh, Amadou Abass Diouf waxee jiituñ ci liggéey bi te gën ñu ko xam bu baax a baax kon moom bu mel ne apprécier na rek ñu war nañu góorgóorlu wax jéem bu baax mais bu mel ne su su fekkoon te dañuy commenté tuuti waxam dañ ci dégg ñett ba ñeent dañ ci déggee ne fi yàqu wax ne. Euh, ba nga yàqoo jëm ci tàmbale ci wéyjur yi nga xamante ne ñoom la xale yi di bàyyi di génne ñoom la ci ñoom la xale yi di bàyyee bàyyi ko di génn di def euh, di nga ci déggee itam ne euh, lu mu yàqu yàqu nag ci ay waxam wax na ba tudd ne fu ndox daan taa ba demee fu fekk ay tepp-teppal kon référence ba tey kon des na ki bëgg a baax su bëggee baax bu góorgóorlu tuut te def yitte rek baax war na ko mën a yomb. jërëjëf sëñ Moustapha sa nga lu am solo mel ne ñun léegi dañoo jàpp ne référence amatul koo wax sax d'ailleurs dañ koy wax jamono dafa yàqu alors que jamono du yàqu jamono du soppeeku jamono du yàqu xëj na kay nit ñooy soppeeku wala ñuy yàqu loolu man loolu laa jàpp kon comme ni nga ko waxee rek am nañ ay références yoo xam ne war nañoo roy ci ñoom waaye suñu parents aussi ndax nee am na lu ko wolof di waxee banaan ñoom mbaxtaan la xaw ma ma gën a dégg cam ca Madiakhane nga waa loolu expression bi xëy na mënuma ko wax correctement mais base bi daal pour wax ne suñuy parents muy suñuy yaay muy suñuy baay xëy na ñu war a delloo si comme que ñooñu njëkk ci àdduna gën ñu ëpp ñu expérience xam nañ ne lii mooy lu baax lii mooy lu bon. bu ñu yaree ni ñu war a yare waaye léegi nag gis nañ ne say parents mën nañ laa yar nañ la war a yare waaye nga génn société bi yàq la. loolu it lu am importance la léegi nag nan nan lañ koy defaree xanaa kay ku nekk jéem fa nga féete nga jéem faa defaree ndax bu parents yi yaree télévision yi yàq ndax sa télévision xañ na mënoo koo kale fenn wala nga génn dem liggéey ne samay doom force li lañuy seetaan ñoom peut-être ñu génn xool li ñu bëgg a xool wala sax ñu dem génn société bi muy ca école ba wala bërëb ba ñu liggéeyee am fa loo xamante ne nii mooy yàq seen ay jikko alors que yow base bi defoon nga xëj nga la war. kon ñëpp la incombé ñu jéem defar ku nekk ci sa côté nga jéem a baaxal ci sa côté du ñu ñëw nag di joxe ay leçon de morale parce que xam nga rek ñun ñëpp am na njikko yoo xamante ni nii xaj na du ñu jaar yoon leen <clears throat> ñu def rek mooy fàttalante waxante ku nekk loo xamante ni nii dañ lay ñaan nga jéem a soppeeku ci sa jikko ndax am na ñoo xam dañuy ñëw ci Mame Diarra di raam di xalangu ci suuf loolu jàpp naa ne ce sont des choses anodines kon ni ñu ko waxee ay futilité la ndax boo xalangoog nga yuuxoog naan jërëjëf Mame Diarra alors que yow Mame doo royoo ca moom yaa ngi ñëw poroxaan te boo liggéey boo génnee poroxaan doo jéem jàng dara ci Mame Diarra Bousso man par exemple Mame Diarra Bousso bi may wax. Euh, sàkket boobu mu téye woon man daf daf may travail ci sama bopp na loolu nan la ko jigéen mën a defee nan la ko nit koo xamante ni nii rek ndax dala yow ci sa bopp ndax xam ne ku mu téye la woon sàkket bu fa amee cinq minutes di nga ni ko eh yow xanaa danga maa fàtte wala eh yow danga maa yeb sax ba wax ko ci loo xamante ni nii xëj na. du yar du teggin kon maam jaara bu so ni ko war a royee bëri na lool bëri na lool muy suñuy waajur war nañ ñoo jàngal kan mooy maam jaara bu so waaye ni ma ko waxee léegi suñuy njiitu réew war nañoo def ci suñu système éducatif di ñu jàngal soxna jaara ak mag ñu baax ñi fi nekkoon waaye koo xamante ni benn demi page ngay bind ci moom ne soxna jaara fii la juddoo boole ko ñoo xam ne xëy na soxna jaara du seen nawle comme loolu dama ci insister kon war nañ ñoo bàyyi xel ci. kan mooy soxna jaara di ñu ko jàngal bu baax a baax ñun ñu koy xam di ko màggaale mais loo xam ne primaire lañ la ko jàngal te benn leçon lay doon bu ëllëgee nga fàtte ko loolu du am du am solo du am importance li ma gëm nag mooy kon affaire bi dafa nekk ku nekk am nga ci part de responsabilité nit ku nekk mu mag mu ndaw góor jigéen pour que jikko yi ni ñu koy waxee jamono du soppeeku xëj na nit ñee soppeeku pour que jikko yi changé il faut ku nekk fa nekk nga jéem koo defar. soxna jaara nag bu may résumé rek pour xam naa ne jotaay bi leen ñu yëkkati ko mooy benn bindikat li mu doon wax mu Pierre Corneille aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années yaakaar naa ne soxna jaara loolu la jàngal ndax 33 ans nga def fi loo xamante ne nii ba tey jàpp naa ne poroxaan ci démb amoon na importance tey importance bi raw te suba ak ginnaaw suba importance su liggéeyu Maam bu so day day nekk loo xam ne day dëkk ba génération yi ñëw dañuy ñëw poroxaan di ba keroog àdduna tukki soxna jaar dañ koo dégg te loolu dafa am importance comme ba tey li ma ko waxee rek am nañ ay valeurs yoo xamante ne nii war nañ cee tiitaru nag te bàyyi valeurs yi jàmbur yi nga xam ne moom la ñuy tiitaroo sam papa maa ngi ko gërëm bu baax moom ñun la faral daal féministe la jigéen ñi la faral kontaan naa ci lool waaye li mu wax it dëgg la ñun jigéen ñi xëj na ñu leen di gis ñu ngi jàmbaare bu baax di liggéey di kii da gis jigéen joo xam ne day liggéey bi bëgg a dem bu ëllëgee grand théâtre xew la mu dem sotti fa xaalis ba baatare ñu ne baatare moo xew xam nga loolu itam du la jox yow mi nga xam ne yow yaay jigéen du la jox pësteefu yow nga liggéey xam nga soxna si fi mu li muy liggéey ak fi mu koy dugal kenn ni ko fi mu ko dugal ndax ci soxna jaar la ko dugal mais yow da ngay liggéey bay bëgg a dee doo nelaw doo tëdd boo liggéey eh, ab woykat bi tëgg grand théâtre nga dem fa bu ñu waxee nga ne maamam sama xaalis bu ma neexee dama koy baatale lépp ci yëg sa bopp ak tiitaru soxna jaara nekkul woon ci loolu nga ne soxna jaara aussi bi nga xamee ne dañ koy wutal euh, dafay dafay ñëw ay ñi nga xam ne ñun ay wujju lañ leen di woowee ña nekkee woon a ñoom rek ñun war nañoo def refer war nañoo doy ci roy ci moom fii kuñ fi ne dañ dañ lay wutal wujju boo léegi yaa ngi wut sab gang wala sab clan ñu fas yéene li ñuy wax di wax ay expression yu inflammatoire ndax dañ lay wax ay xëppante acide la ñuy def wala ay wax yoo xam ne kenn mënu koo wax daal mu mel ne wujju moom à la base noonu la war a doon daal ci ñun jigéen ñi jamono ji kon soxna Diarra daal référence la ci ñun te moom la war a doon ba faaw daal jërëjëf. tabarkalla jërëjëf soxna soo di mu mel ne ubbi nga yeneen i bunt itam waaye xam naa ne euh, duñ ci doxantu ndax buñ ci doxantu rek day mel dafa yaatal euh, jotaay bi. Euh, tabarkalla dafa mel ne dañ ci dégg rek ci commentaire bi Euh, nga ni ñu ci andil ne euh, quand si quelqu'un au pétence réglé c'est dans le bon côté qu'il lui faut ressembler euh, ci tax na loolu sunu yaay nu gis nga ànd ak sa njaboot bu nee njaboot nit xel day dem ci doom jarbaat sët waaye tey sa njaboot ñu gis ne ay nit la ñoo xamante ne nii seen ay wajur ñoo leen doyloo gis sa marketing gis sa publicité mu doy leen ci wàllu école ci jàngale nga ne ne fas naa yéen def ci ñoom savoir ñu góorgóorlu te gëm loolu ñëw inscrire leen waaye nu dem ba ci biir gis ndekete yoo savoir bi dong doy toon da nga def ci ñoom savoir être ak savoir faire waaye nga junjoo kan jàmbaar ji nga xamante ne moom moo def ci sa xol mu soxna Diarra Talla Mariama xale yi dañuy muuru xale yi dañuy musóoru ngi daan dugg si amoon benn accoutrement bi ñu daan indaale bu ñu doxee ak yow weer ba juróom benn weer nga gis ñu soppiku lool. sawar yëkkati seen addiya yëkkati ci jël seen temps jël seen jot barki dem ba léegi ñu gis leen ñu bàyyi seen soxla yëpp formé amical ñëw tàpp ci sa ginnaaw fas yéene jàpp ci màggalu Porokhane gi la mooy sa stratégie. Euh, sëñ Moustapha li ma ciy njëkk a wax sax li ma taataane ci waxtaan wi léegi gis nañ ni ñun fi mu nekk nii yëf yi sax mu ngay bëgg daal di tarxiis soxna jaara ay mbiram moo mel noonu. Euh, sëñ Abbas dégg ngeen lim fi wax euh, man soxna Soda man dootuma ko tuddee soxna Soda soxna Mariama Bousso laa koy tuddee waxtaan wi dem na soxna Jaara mbiram moo mel noonu dafay laaw lépp dafay laaw jikko yi jëfin yi nekk nii ndax gis nga ñun sax suñu waxtaan wi mu ngi dem ba nga xam ne dafay bëgg ñoo ëpp loxo sax mbiri soxna Jaara la euh, ni ma ko waxee. ci école bi ñun yar bi la ñuy njëkk a tàmbali ndax yar sa doom mu ngi mel ni ah, sa tool yere defarut ba mu baax doo ca mun a ji loo xam ne lu mun a sotti la te it li ma la ko waxee rek man turu école bi suba gu jot dañ koy fàttali xale yi te ñoom sax seen tournée culturelle yi dañuy def ay conférence du waxtaan ci jikkoy soxna Mariama euh, ma di leen won wax dëgg yàlla ne ah nii la ñu war a doxale te loolu aw ma ci benn caaxaan waajur yi nga xam ne dañuy ñëwit di la dënk seen doom di ci wut euh, njàngale mu rafet njàngale métier yar ak teggin suba gu jot dañuy ñaan te di leen won di leen ñaan di leen won ne yaakaar gi ngeen am ci ñun rek ci fi mu nekk nii euh, sëñ Moustapha am na ci témoignage témoignage yoo xam ne parent yi dangay gis ku ñëw daal di ne man di waxuma sax njàngale mi waaye man sama doom dafa am jikko yu ma gisoon ci moom waaye léegi dafay soppeeku soppeeku goo xam ne dama ne faaw dinaa ñëw loolu ma gërëme leen ko xale yi ñoom ci seen jëmmu bopp. ñoom ci seen jëm bopp dañuy dem ba ñëw surtout ak directrice bi madame Timaxa ndax man maay directrice générale bi ndax euh, maam Diarra école maam Diarra c'est un groupe wax naa ko léegi am na ci région yi dañuy ñaan yàlla lawal ko fépp ni nga ko waxee rek tabarkàlla fu sëñ Touba fu ab daaru nekk rek euh, maam Diarra nekk fa itam pour di fa def lu baax ñoom xale yi ci seen jëmu bopp dañuy ñëw. di ñu won ne man de damay yëg ci sama yaram loo xam ne ba ma fiy doog a dugg nii laa meloon waaye maa ngi def ci yéen a ngi def ci man loo xam ne man ci sama jëm bopp dama ko yëg ci gis nga antenne médical bii ñuy def xale ci boppam dañuy cotiser seen xaalis poroxaan daanaka bu nu bu nu xasee gàmmu ba pare rek ba ñu jàpp dat bi ñoom ñooy seen seen euh, amicale ci biir ñooy def seen réunion ñooy cotiser ñooy bind ay lettres yoo xam ne dañuy dem di ko jox seeni waajur di ko jox ku baax ku ñu xam ñoom fi mu nekk nii ñooy dem dajale seen xaalis dem di ndugg seen ndugg di defar seeni t-shirt di ko waajal waajal boo xam ñun daanaka dañ leen di seet rek ndax xale yitam lu mu ci munti doon wax dëgg yàlla fokk nga di ko seet li muy def waaye daanaka ñoom ñoo koy defal seen bopp sax consultation yi fii ñooy futteeku di ko def te liggéey bi doon rek consultation ndax foo dajale mbooloo ah fokk mu am yi bernde fokk mu am ñoom daal lépp ñoom ñoo koy defal seen bopp. ma xam ne soxna Mariama ci boppam ay mbiram kenn mënu koo waxtaane xanaa da ngay jéem a seet rek la nga ca mën a jàpp rek nga nga wax ko waaye mbiram dafa dafa dafa doon loo xam ne dafa dafa jafe waxtaanee jikko ja alxuraan ja néegu sëy ba développement ba loo ko tuddee sax ci man dafa mel ni léeg-léeg man damay dem ba yàgg mu jaaxal ma am na benn bés dama nekk ci yoon ma am lu ma yittewoo daal di droité sama oto wàcc dugg ci benn kër la ma yittewoo woon ma daal di nuyoo ne waa kër ga daal di wax la ma yittewoo daal noonu soxna sama fa fekk daal yow eh, maam jaara ñëwal wuyu sa tante xam nga <laughs> est-ce que suñ mut xam nga li ma xam nga dawal ba tolloog benn kër rek xaw ma ku lu fa nekk ku ku nu mu tudd ma daal di waxtaan ak moom daal di mu daal di eh maam yow ñëwal nga wuyu sa tante man daal man ne soxna jaara nag moom xam naa ne mais koo bëgg mu bëgg la sëñ mu tafa ak koo bëgg mu bëgg la koo jàpp mu jàpp la jàppin woo ko defee nag noonu la lay jàppee ñun nag ñu ngi sant bu wér nag ñun ñu ngi sant bu wér a wér a ndax yëg nañ li soxna jaare def si ñun te tey jii bu doon beneen thème ba ma toog rek di la nettali ay anecdote ci histoire école bi am na benn bés boo xam ne dama xam nga entreprise dafa metti dama toog ba nga xam ne sama ordinateur yi nga xam ne secrétaire bi daf koy liggéeyee sax dafa dafa yàqu ma ne benn école privée bu doon jàngalee informatique ma ne ko waa sëñ bi mun naa ma ne ko man de yow ñi nekk ci affaire yi informatique xëy na am kuy jaay ay ordinateur ak yooyu man de dama ko yittewoo ba yàgg ma ne ko ah man de bu amee ma lebal ñaar rek man di di ci dawal ba mu jeex ak yooyu mu daal ma xaaral man daal dafa am tam benn xarit boo xam ne dafa jóge bitim réew indi yi ordinateur ma ne ko waxuma ay conteneur ku ma lebal ñaar laa wax. mu daal di ñëw ne ma xaaral ba suba ma woo ko mu ñëw waa ji daal di ñëw waxtaan ak yooyu ma ne ko mu daal ne ah sama soxna sii de moom jàmbaar la dafay liggéey wax dëgg yàlla moom dafa soxla woon rek euh, nee na ñaari ordinateur ma ne ko ah waaye nañ leeral soxna bi man kat mënumaa jënd teew ndax booba dañuy tàmbali ci yëf ya metti woon na mënumaa jënd teew waaye dama buggoon rek boo ma lebalee ma am lu ma avance li ci des ma joxe ko ba mu jeex mu daal ne mu man daal dama indi woon euh, conteneur ordinateur dama ko jaay ba mu desee vingt ordinateur ma ne ko yow koo xam ne ñaar daf lay teg nga ñëw di wax waxi vingt mu daal mu di ma tooñ naan ma ah génne leen xaalis bi yow soxna si yéen am ngeen xaalis ma ne ko waaw ah ñu ngi sant bu wér mu daal ne bon man daal dama ko fa bàyyi parce que xale yi ubbi si beer ñu ngi ma wër di wax meew doyloo ma leen man daal soxna si dama laa gis rek nga doy ma barke sëñ ma ne ko ah yow li nga wax dafa diis torop de mu ne ma noonoo man daal boo bëggee mun naa la fi wëccal vin ordinateur ma ne ko loolu nu ma koy def mu ne ma noo xam nga ministère de la santé suñ formation euh, il faut nga am taal informatique fait partie de de, de nos ma ne ko loolu de duma ko mën a fay mu ne ma bàyyil ma bàyyil la ko rek man damay dem Europe déwén laay del si ma ne ko mais lépp neex na itam dañuy fay bu fekkee ne da nga ko wàcc sa famille par exemple weer wu dee bu nekk ma dem jox ko dara li muy dépense mu ne ma loolu yëpp réglé naa ko ma ne ko boo fi amee te beneen xarit boo xam ne ma joxal la ko ko mu ne ma loolu yëpp réglé naa ko man daal boo bëggee mun naa la ko wëccal woo sama technicien mu vérifier la ko man déwén laay ñëwaat yow yaa xam nooy def man ko waaw bàyyil ma consulter sama staff ma wax ak sama sama sama comptable ñu wax wax wax mu ne ma d'accord fa may waxee daal mu mu daal di koy indi livré ko ma ne waaw lii moom ndax wóor na dégg nga man nit ma daal di cee góorgóorlu weer wu dee ma am fu ma fekk bàyyi ko ma toog ba mois bi dël si fekk dafa bàyyil ñaari numéro numéro Sénégal ak numéro Europe fu mu nekk mu ne ma boo ma woowee ci numéro bi ma wuyu rek xamal ne maa ngi Sénégal ma toog ba yëf yi am at ba tegal weer dégguma waa ji fenn ma woote ci numéro bi mu daal di wuyu ma ne ko ah mais kon yaa ngi Sénégal mu ne ma waaw. ma ne ko ah waaye yow boobu ba léegi li nekk sama digganteek yow ñëwuloo sax wax ci mu ne ma noonu dama xam ne du am problème ma ne ko déet bul wax loolu mu ne ma d'accord dinaa ñëw mu daal di yegg si ma jox ko xaalisam fa ma ko ko dajalee loon mu installé ma salle informatique keroog waa ministère de la santé bi ñu ñëwee di def seen inspection dañ naan yéen daal maam jaara daal bokku ci. <laughs> <laughs> loolu tey jii sëñ bi am na ci yu bari yoo xam ne bu ma ko doon nettali mun na doy émission bi te wallaahi barke Cheikhul Khadim dama koo dund dama koo dund waaw histoire école bi rek mun naa ci def conférence waaw mun naa ci def conférence waaw tabarkàlla jikkoy Mariama Bousso man xam naa ne euh, li may euh, wax daal ne liggéeyal sëñ Touba baax na liggéeyal soxna Mariama Bousso am na solo lool. am na solo lool loolu daal laa xam ne baax na li may tàggoo moo di que ni sama mbokku jigéen ñi li sëñ Abbas wax léegi soxna Sooda Mariama wax ko ñun ñooy àddina parce que boo nee àddina euh, jigéen ñi ak xale yi jigéen ñi ñooy xale yi parce que jigéen ñi ñooy jur xale yi te ñoo leen di yar te ñun ñi nga xam ne dañoo def wér gu yaram Euh, xam affaire ëmb diggante ndey ak doom euh, li ngay lekk jaar ci sa deret dem ci xale bi euh, li ngay naan jaar ci sa deret dem ci xale bi moo tax ñu ci bëri ñu ci bëri loolu dama ciy profité tax di ko wax ak soxna warul du tox cigarette ak soxna warul du def leneen su ma tuddee cigarette rek mooy ak xeetam ci it soo ëmbee am nga war nooy doxalee. soo koy nàmpal war nga am noo koy doxale soo koy yar war nga ko yar yar bu rafet ndax li nekk ci yow mooy nekk ci xale boobu ci xale boobu ëllëg mooy yore jikko bi nga xam ne mooy defar réew mi kon jigéen mooy àddina xam naa ne soxna bu Bousso moom jege ko dana jafe waaye nañu roy rek nañu jéem nañu jéem te ñu fonk ko ci liggéeyal ko am na njariñ nañu fonk soxna Mariama buso te liggéeyal ko dafa am njëriñ ci man am naa ci lu ma leer kon nag loolu rek laa xam ne loolu laay tàggatoo di leen gërëm di leen tant di leen ñaanal tabarkàlla liggéey bi ngeen di def rafet na loolu laa amoon daal loo xam ne lu ma leen di tàggoo. tàggoo bi day def naa ni li ma bëggoon wax madame Dieng soxna Aminta eh, dafa saxam dafa saxam sabab lañ ci waaw man dama bëgg a dellu siwaat rek parce que boo soxna soxna Mariama Bousso daan ni mouridisme boo nee mouridisme daan ni wax Cheikh Ahmad Bamba waaw mouridisme dafa am fu mu toll woon bi sëriñ bi wàccee liggéey ñi nga xam ne ñoo ko wuti wuutu bu njoon daanu ay jël rek yem fa mouridisme du avancé nii mouridisme xel lañ ko xel lañ ko tabaxee nañu boo daani jël bu noppi nag na nga jóg utiliser sa xel ñi wuutu sëñ bi fii mu ko dale ci sëñ Modou Moustapha nga jaar ci sëñ Fallou sëñ Abdou Lahat ba ba ba sëñ Sidi Maxtaar ya lu ñu daanu jël seen xelal la ñuy seen xam-xam pour yoon mu avancer waaw donc loolu nit ñi war nañ ci bàyyi xel waaw bu bu ñu defee comme ñoom ku nekk indi waar parce que ñoom ñu bay nañ seen waar li leen war nag war na murit bu nekk lu mu war war war fekk lu yàqu sax nga defar ko ci waar wi la ah waaw loolu daal war nañ ci bàyyi bu baax baax suñu xel ci nag doole bu doole bu muridisme am def naa buñ ko gënoon réorganiser waaw parce que quand même euh, y problème waaw parce que Touba léegi ni mu tollu ah def naa ni sa c'est la deuxième ville sinon ça va être bientôt la première ville du Sénégal ci y a des de sécurité. hein, y a des problèmes de santé ah y a de salubrité donc loolu lépp ci dëkk bu tedd noonu bon ku nekk war nga ci dugal sawar waar pour que dëkk bi dëkk bi doon comme ni ko boromam sancee mu doon une ville sainte waaw loolu nag mën na nekk bu baax a baax a baax parce que pas-pas bi mi ngi fi bon xam-xam bi mi ngi fi li ci des rek mooy organisation bi waaw loolu nag. temp temp yaa ngi ñëw parce que boo xoolee euh, Touba bu njëkk ba ak ñaari hôpitaux yoo fa nekk ah ay jàmbaar fexe ba mu taxaw waaw ak yeneen ak yeneen daal donc euh, liggéey bi du jeex mukk liggéey bi moom du jeex waaw moo tax képp ku ci toll rek vraiment war ngaa ñëw indi ci sa xel indi ci sa xam-xam indi ci sa doole indi ci sa leneen loo xam ni mën na puus su euh, yoon wi mu dem ca yoon wi ah euh, yoonu yoonu yar yar sëñ Tuubaa yar ko tax jóg yar yar yar yar yar moom yoon wi yoonu yar la yar yar du ma def nag lu dul di arrêté fii parce que loo gis dafa am temps <laughs> waaw xanaa di vraiment di leen sant di leen euh, encourager waaw euh, parce que euh, édition yu mel ni émission yu mel nii ngeen di def télévision yu mel nii ngeen di def moom moo mën a parce que ci yar la li ñuy wax yëpp ci yar la yooyu royukaay bu baax loolu lépp ci yar lay dellu man soxna bu Bousso mu ñu fi waxee nag kenn mënul dépasser royukaay ci moom soxna la waaye ah euh, bay na waaram de bay na ko bu baax a baax a baax a baax a baax ku roy ci moom ah yaakaar naa di defaru àddina ak àllaxira soxna jaara royukaay la woon soxna Soda soxna jaara jàmbaar la woon mu mel ne andi na ñett xel mu rafet mu sell na nga ko joxete yàlla tax xam-xam bu rafet bu sell na nga ko cee joxe te yàlla tax ak dolli ju wér bu sell na nga ko cee joxe te yàlla tax mu mel ni ñett yëpp soxna jaaratu lay Mariama Bousso bale woon na ko yéene woon ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala waaye yéene woon ko sangam ba Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye yéene ko sangam bi nga xamante ne moom la ko seqaloon nag muy euh, euh, jàmbar ji di euh, Serigne Mor Sali waaye li olof di wax rek ne saa su ah, ñay daal buy xàll mbabal. jërëjëf sëñ Moustapha mu mel ne li nga wax am na solo lool soxna jaara mi nga xam ne daan joxe xam xelam mu rafet mu mel ne loolu itam lu mu doon la rek gis nga soxna astuwaal mi nga xam ne ja nee nañ dund na téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñett waaye lépp ci joxe xam-xam ndax bu ñuy wax ay universitaire tey ñuy lim fii si suñuy jamono ñoo xam ne xam-xam lañ leen di kiyee ñi nga jàngale université wala dara bu doon jamono yooyu xëy ne dinañ ci boole soxna asuwaalo ndax jàngale gi mu daan def di wasaare xam-xam mu mel ne soxna jaara loolu di naan kéwél du tëb doom ja loolu moo am waaw loolu mooy dëgg kon loolu lu mu royee la rek ci ay waajuram wala lu ko ay waajuram jàngal ndax koo xam ne ne nañ ba am fukki at nga mokkal alxuraan ci tarimi ak ci bind mi fukki at ak juróom-ñeent nga mokkal li ñuy wax les sciences religieuses muy ay tawxiid ay fiq loolu yaakaar naa ne lu jafe-jafe la kon xam-xam boobu xam ne da koy génnewaat di ko tasaare pour ñi wax sax ne ba ci Mamour Anta ñi nga xam ne da leen daan jàngal soxna Jaara taxawaay bi nga xam ne amoon na si ci yërëm gum leen yërëm ci ni mu leen daan dimbalee ba ci am na ci sax ñoo xam ne dañoo dem ba bindal ko ay taalif ci jikkoom bi rafet yooyu mu mel ne loolu yéeme la liñ fi wax rek xanaa pour toj teg di wax ne soxna Jaara royukaay lañ ñun am nañ koo xam ne war nañ koo tiitaroo ci àdduna woon ngir këpp ba ñëpp xam ne. a Sénégal kat dëkk bu tuuti la xëy na ne économie am demeewul noonu am nañu ko ëpp xaalis waaye ku ko ëpp xaalis it mu ëpp la jàmm ku ko ëpp xaalis mu ëpp la nit ñu baax loolu rek moo war a mën a loolu mën a tiitaroo sëñ Moustapha maa ngi lay gërëm bu baax di gërëm sama tata madame Dieng moom itam jàmbaar la ndax gis nañu dem nañ ci école ba gis nañ na mel gis nañu liggéey bi mu def di wax moom itam royukaay la sëñ sam papa Diouf itam maa ko nuyu bu baax Cheikh Amadou di ko ñaanal bu baax a baax ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ne am na ko ci wasaare xam-xam li wax rek mooy dañuy takku tàggu mbokku téléspectateurs yi te ñaanal soxna Aida Ndiaye Badalor mosuñu ko gis xëy na xamuñu ko waaye gis nañ lim daan liggéeyal maam Jaara Bousso yàlla yërëm ko taxale ko àjjana di ñaanal sëñ Moustapha Bassirou ndax mënoo ñëw Porokhane teg ñaanaloo sëñ Moustapha Bassirou ndax gis nga li mu fi def waaye xam ne Cheikh Abdoulaye moo ne woon Moustapha de gërëm naa ko kon ñun mënuñu koo gërëm dañ koy ñaan yàlla yokk ay leeram te taas ñu si barkeem sama sëriñ nag muy sëñ Abdou Akim Mbacke nga xam ne dama ko bëggoon lool daan ko seeti lu bëree bëri itam ñu ñaan yàlla mu yokk ay leeram waaye sama référence sëriñ Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg lool te wér di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen doon seetaan Bichri TV di leen jox dig daje fan yu néew wala sax fii ak suba incha ci yeneen ay plateau wala yeneen waxtaan lépp jëm ci màggalu Poroxaan. Euh, jërëjëf euh, kon mbokk yi lii lañ fi doon doxantu xanaa rek ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu dimbali ñu may ñu dégg ak topp ku dégg waxtaan wi doxantu ci biir da nga mën a jëlee dara jàpp nañ ko te rafet nañ ci njort bu baax a baax dañ doon jéem ànd ak sunu ay wéjur ànd ak sunu ay kilifa doon jéem a topp tànk yi nga xamante ni tànk waay ju baax la doon jéem a topp tonki tànk waay yi nga xamante ne ni ku topp ay tànkam doo réer dégg ngeen way wax naa ko def ko ne ba defoon suqab ci woon day doon woon kii nu wóolu doj nga doj xajal cib neen soxna jaaro moom la ñu wóolu moom lañ doy loo kon euh, sunu yaay booy ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm euh, madame Dieng sunu baay booy sunu nijaay ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm soxna Soda la ci développement bi nga xamante ne consulté consulté nga nu ko macha allah ci waxtaan bi euh, kon daal li may faral di wax rek saa su ne ne ko mbokk yi bokk dégg kéwal du cëb dëm jëbët olof dafa wax ne mbooleem luy gaynde jur bu max day fàdd baa muy toj yàq ndax xarika bay duñ taji yàq doole ñaloor ma tëj xalam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala barakaatuhu jërë ngeen jëf